jaar naa la. si la nekk. waaw ñu nii rek. ñoo gisee initiative bi jàmbaar production def. waaw jàmbaar moom dañ koy gën ñaaxaat rek. di ko gën a wax ni bu mu teg loxoom noonu bu mu seetee bi. wax ci kaw bu gën a yu bari yu def bii. ñu mhm. nekk si làmb ji bari na. Mhm. mu ñëw lii di jaar fii. dañ koy dellu gën a sant rek. Mhm. parce que ñoom Papa Sow gis nañu si jàppee waa jàmbaar bi yëpp. ak Serigne jàpp nañ si bu baax. mais yow mos nga voyage wala. non mosuma c' est la première fois. Ah, ndeysaan nga am. waaw ñii kay yàlla lañ fay. bilaay wallaay yàlla lañ fay. ndeysaan man lañ bàyyi suñu borom la. Mhm. moo xam si. mbër mhm. ziar naa la. si la nekk. waa jàmbaar def. waaw maa ngi leen waa jàmbaar moom wóor nañ seen tur quoi. Mhm. ay jàmbaar lañ. te tamit ñu ngi taxawlu jeunesse bi bu di jàppale jeunesse bi ak seen propre moyen quoi. waaw di leen wax ne tamit am lool. waaw jaajëfal quoi ñu leen di ñaanal tamit lu luñ mën di leen déwén mën ñu ko raw. waaw kontaan nañ ñun ñëpp. respectivement lañ leen yóbbu quoi Espagne. waaw Espagne lañ ñu yóbbu. est-ce que mos ngaa tukki. waaw c'est la Espagne quoi mais maa ngi daan dem dëkk yeneen dëkk yi quoi waaw. léegi nga am si loolu. mais kontaan rek. waaw parce que ñun moom gaan ay taalibe la. waaw man tamit waaw lépp rek si taalibe Mhm. est-ce que est-ce que pare nga pour waa jàmbaar bu ñu tëggaatee sa combat nga bëral leen. non man ama combat maa ngi ku ma tëggal combat bi. Mhm. waa jàmbaar bu ma tëggalee damay bëre bu ma joxoon avance léeg-léeg dama koy jox. mais comme da ngay gis mbër bu mbër bu am mbooloo comme yow promoteur dañ lay xëccoo. waaw ba tey nii may wax ak yow ne ay promoteur ñu taxaw. ne di wax. mais jàmbaar daal bu ñu bëggee ku bëgg ñàkk. waaw bu jàmbaar man maa ngi fi pour ñëpp mais nag jàmbaar tamit maanaam nit góor rek la mën a doon quoi. Mhm. yaa ngi dégg waaw kuy dee kuy kuy sonn ndax yow da ngay dee ngir moom. Mhm. waaw bu ma tëggee damay déglu mu bëri quoi. Mhm. waaw passeport baa nekk nii de ah. waaw passeport baa nekk nii am billet bi quoi. mais sa digganteeg Mor lu ko yàq. Mor lu yàq sama diggante ak moom problème prix la quoi. Mhm. waaw problème prix la avant tamit yàlla lu ko nangawul quoi. waaw man xale laa rek damay entraîné làmb mooy seen métier. parce que dama leen koy wax toujours nee naa leen man maanaam li nekk sama ginnaaw ñoo xam ne dama war a sauver ay honneur. samay booy yeneen ak ñeen dama leen see war a génn ak liis. dégg nga voilà kon lépp lu ñuy def rek maanaam ñun dañu doon taalibe nañ doon sampal suñu waaw maa bu ñu exploité ko wax waaw nañu teg ci yoon rek ñu bëri mhm. moo gën ko wax parce que tamit maanaam li dañuy dañuy liggéey ñun wala mhm. voilà noonu la demee maanaam kase bi ñu la fay moo la arrangé wu noonu la demee kase bi ñu la fay arrangé wu ko arrangé wu daf na stock moo tax quoi mhm. mais sëñ Fall mais mbër dégg naa yow da ngay delloo avance avance kan laa delloo ah bëri na de dégg naa mbër yi ñu lay jox avance ngay delloo de man waaw ah. man aw ma avance may delloo Ah. xale la lamb mooy sax moom lamb laa yaakaar. Ah. waaw ñan nga bëgg a bëri. kun ma jox ma bëri moom. xaw ma lenn may taamu limal ma ñaar. li ma la koo fi lim fii fu mu ne nii danaan ah. ma la kun ma ma bëri moom. waaw kon koy tëgg de. ah te la koy tëgg bu neexee yàlla. amoo. billaahi. léegi daal jox nga leen bopp quoi. bu baax. loolu la wax yow. man la la wax dara. ça va noo def. yaa si jàmm waaw si initiative bi jàmm laa def. waaw am na lii trop. baax day tax gars yi gën a góorgóorlu. gën a ñu wu bañ compétition la à tout moment. damay am compétition doog a à tout moment del entraîné fu la compétition fekk fekk Papa loo si dolli. ah loo si dolli. man dama si dolli. waaw. waaw di jaajëfal di jaajëfal jàmbaar yëpp mais bi si kan la jógee idée bi. ah idée bi toujours rek groupe jàmbaar production la jëlee ci PDG bi ñu liggéey ko comprendre nga. ba mu toll fii normalement PDG bi ñoo doon ànd ñoo ngi maas doon waaw moom bëgg na ñëw quoi incha allah. mais daal lii nii Safietou Anta Samb am ambulance. Liss Ndiago ah Modja Dame Sène. ñoom ñëpp dañoo war a dem compétir war a mbëkkante gars yi. mais dama laaj bébé Modou Lo moom day jóge Italie fekk ñu fële. mais ñaan ñii ñëpp dama leen laaj ñu ne mosu ñëw tukki. waaw nga nit mu njëkk tukki. waaw loolu ban yëgee nga say am loolu. waaw leen yàlla c'est un début rek li de commencement rek. te affaire yi am na bu ñu demee gis ni commencement la. partenaire yi ñu am na dañoo pare pour liggéey ak ñun. liggéey boo xamante ni at bi yëpp xam naa ne booy moom ñu dinañ voyage lu bare bare bare incha allah. Hmm. dinañ dem ñëw dem ñëw dem ñëw dem ñëw lu bare kon daal kon maa mbëri duñ daw pour jàmbaar tëgg leen. ah non non mais rek non voyage xam moom première bi ñii xam naa ni après dana mujj booy waxee sax kaa ñu dem da di bañ. voyage dafa xaw a métti. ok wala comme ñaar ñii ñoom taa mën nañ voyage. ok def nañ ku nekk voyage mooy ñaari jigéen ñi. du sax sawar booy waxee ay sa passeport da nga gis dañuy yéexantu ba au dernier moment quoi comprendre nga mais daal ñi ay booy la ñoo xamante ne daal combat bi engagé dañoo am disponibilité am lépp ba tax na man ñeme naa leen quoi ñeme naa leen quoi ma lay jaajëfal jaajëf xaar mbër loo ci initiative bi jàmbaar def waaw am contentement rek ndax euh, initiative bu rafet la ndax xam nga làmb dafa yaatu. Mhm. te ñu man exemple ak toujours ñu ambulance ak liis dañuy bëre ak seen ay mbër. mais xooluñu loolu bi ñu gisee ne lii lu ñu mën a jariñ la dañu yaatal def ko yëfu làmb mhm. dañ siy remercier Mansour Ba Papa ak euh, jàpp kuy bëre way wi yaa ko moomee waaw nañ ko dinañ sargal